la yàlla ne fakuluhu lekk leen ko hani an maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen xalaalan tayiba al mawhubu xalaalan tayiba mu dagante tey kon jigéen sañ na liñ ko may may gu njëkk mu comp ca jëlloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lépp tabarkalla jëfandikoo ko daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam ñu jël may googee séddale ko ay tantaam séddale ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu céet ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola ribaa la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw ribaa yàlla nee na déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goro ya te kuy guerre ak yàlla noo mën a def da nga daanu loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal képp comme ne danaa geer ak yow bu yóbbu nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci nga nay du doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy du too far nelaw yàlla moom ku mën a geer la ndax am na ci soldaaram yi ku ñuy wax njéréer soccet bu ko yebalee cim réew képp waa réew mu tàmbalee sonn waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam ne duñu ko gis mu dellu siwaat ci jirim yi wala tuutu sufahaa bu leen jox jirim yi nga xam ne seen xel mëtagut bu leen leen jox amwaalakum seeni alal allati seen alal ji nga xam ne ja'alallahu lakum yàlla defal na leen ko xiyaaman muy taxawukaay muy ndëgër lay seen alal ji nga xam ne yéen a ko yor yor alali jirim mu ne bu leen ko jox jirim yi te fekk ñoom sufahaa lañ laa tuuti safihan maalahu wa huwa alladi yufsiduhu bi suui tadbirihi sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unsa loolu la tabari wax safi mooy koo xam ne boo ko joxoonub junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo mën naa nekk safi waa ji yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow bii nga jënd nga jënd soow bii nga jënd cere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wàññi koo fa di jooy ñëw ba ci kër gi yaayam na ko looy jooy mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow kooku mooy safi kooku bu kenn jox alal kooku la yàlla wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal na leen ko xiyaaman muy ndëgër lay nu ñu def nag mu ne warsuquhum fiiha na ngeen leen ci wërsëgal na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan añ reer ndékki wak suuhum na ngeen leen ca waddu da leen leen ca xottil ca xaalis boobee wa quulu lahum te ngeen wax leen xawla maarufa waxi njëkk ku yor alalu jirim bàyyam nekku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk dee ko wax ne sa pap bàyyi woon na fi 3 millions jëndal naa la ci yére nangam ñaari junni wala ñetti junni ah ba bi sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon fas wii yow laa ko ci jëndal na nga koy wax xawla maarufa waxi njëkk te it nay ami seede wabtalu bu ngeen leen bëgg a jox alal ja nag na ngeen nattu alyataama jirim yi hatta ida balagu nikaaxa ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg saa su nekk di seet ba xam xam nañ xaalis ba xam seen xel mat na wala matul saa su nekk ngeen koy seet hatta iza balagu nikaaxa ba ñu mat a tànk fa in anastum minhum rusda bu ngeen génne ko ci ñoom ak njub xam ne xel mi mat na mën naa ñàkk yàq al alal warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwaalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwaalahum seeni alal jëriñ bi nga yor alalam mu dem ba mën koo sàmmal boppam yàlla nee na nag bu ko dencal alalam alal ca poosu borom mën na faa yendu mën na faa fanaan ginnaaw léegi xam na xaalis léegi yëkkatil xaalis ba jox ko wala taakuluha waay waay bu leen ko lekk israafan ci yàq waay waay bu leen ko lekk lekk wa bidaaran ak ci njëkkalante an yakburu bala ñoo màgg yor ab jirim ñu ne la su amee dix-huit ans wala quinze mbaa su ma sóoree da nga ko war a jox alalam nga ne xaaral ma parafitoo ci tàmbali léegi soppi na nga daan lekke di defarlu ay ganaar di jënd ay yeneen lenn lu nekk nga lekk ko nekk léegi tey mu màgg alal ji jóg sama loxo kon balaa jóg sama loxo naa ci lekk gaaw yàlla ne bu leen ko def bu leen ko def wala taakuluha bu leen ko lekk israfan ci yàq wa bidaaran ak njëkkalante an yakburu ci ba ñuy màgg bu leen ko def mukk alal ji nga yor daal jirim yor ko na nga ci maandu wa man kaana ganiyan mu ne koo xam ne dangaa nekk ku am ci yéen am nga alal ju bari ñu dénk la ab jirim jël alalam jox la képp ku mel noonu ci yéen fal yastaafif na fegu na yem ci alali boppam képp fal yaafu an maalil yatim wala yaqus ajran ala wisaayatihi na yem ci alalam jooju bum ca lekk dara bum ca jéem a wut ak pay ci yor gi mu ko yor na yem ci li nga xam ne moom mooy alalam waaye bu mu dugg ci alali jirim ba lu tax parce que moom dafa nekk xani wa man kaana faqiran koo xam ne nag dangaa yor ab jirim ñu jox la alalam waaye yow faqir nga amoo dara dara dara ku mel noonu fal yaakul na lekk ca alal ja waaye bil maarufi ci njëkk na ca lekk lekkin wu jaadu na ca lekk lekkin wu rafet bul jël alal ja di ca takkub séet bul jël alal ja di ca jënd ay ganaar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko saax saaxee mu ne bu leen ko def ku ko def ci yéen dugg nga ci loo xam ne xamuloo ko fa isaa dafaatum su ngeen demee bay jox ilayhim ci ñoom amwaalahum seen alal ya su jirim ba demee ba màgg mat na léegi ngeen nar na jox seen alal fa ashhidu alayhim na ngeen ko wutal ay seede na ngeen ko wutal ay seede ndax ëllëg su ne joxuuma seede ya ne joxoon na la ëllëg soo bëggee ne joxoon naa ko te fekk joxoo ko seede na joxoo ko woon na ngeen wut ay seede wa kafa billahi xasiba yàlla nag moom doy na réglé yàlla doy na réglé ci seede soosu moo di bu yowmal xiyaamee loolu fu mu jaar yàlla moom tabaraka wa taala dina ko mën a réglé réglé leen woo xam ne wii woowa mooy wii jaar ci yoon tabarkàlla yàlla nee na lirrijali nasibum mimma taraka alwalidaani wal aqrabun lirrijali góor ñi am nañu nasibun wàll mimma taraka ci li nga xam ne bàyyi na ko alwalidaani ñaari wayjur góor gu nekk bu sa ñaari wayjur faatoo sa papa wala sa yaay wala sa maam wala aqrabuna ak say mbokk sa frère boo bokkal ndey ak baay wala boo bokkal baay kepp ndey kepp ah wala nisaa i jigéen ñi am nañ nasibun ab cër noonu mimma taraka alwalidaani wal aqrabun li nga xam ne ñaari wajur bàyyi nañ ko ak jege ñaale loolu ci wàllu miras moo di day wane ne góor am na aq jigéen am na aq waaye la koy waral nag mooy nasab moo di aw askan muy kii moo la jur wala yow yaa ko jur kii yéen a bokk mu di nit moom benn muy usul wala muy furuu wala xawaasi dinañ ci ñëw incha allah ci risal saqalay ni ci tëralin bu gën a yaatu ndax miraas mi dina xat ci tafsir bi mu ne alal jooju nag mimma qalla mooy la tuuti minhu ca moom aw kasura mbaa lu bari alal ji nga xam ne dañ koo war a séddale ci ginnaaw bi nit ki faatoo bu dee lu bareeg bu dee lu tuuteeg lépp dafay nekk loo xam ne góor dina ci am nasibun jigéen dina ci am nasibun mu ne loolu nag nekk nasiban mafruda cër boo xam ne cëri farata la cëru farata nasiban maqtuan faradahu llahu bi sharcihi alaadil wa kitaabihi almubin cër la boo xam ne farata la tabaraka wa taala moo ko rëdd ci téeréem bii di alquranul karim wane ne ku góor lii la war a am ku jigéen lii la war a am wa isaa xadara su fekkee ulul qurba mbokk yi ñu jege wal yataama ak yatim yi muy jirim yi wal masaakiinu ak miskiin ya maanaam nit ki daa faatu ñuy bëgg a séddale alalam fi ñu toogee di def alxisma te mooy séddale gi mbokk yi am ñu ñëw te amuñu cër mbokk yi am ñu ñëw te ñoom amuñu cër ci nono li ay yetiim nekk fa mooy ñoo xam ne seen wajur yu góor dafa faatu te amuñu ay cër naka noonu almasakinu miskin ya jege fa yàlla ne su ñii fekkee ngeen di miraas farsuquhum minhu wërsëgal leen leen ca ca alali waaja wa quulu lahum te ngeen wax leen xawla maarufa waxi njëkk maanaam nga yëkkati ca ay cent franc ki deux cent jox leen ne leen yii kat du suñu alali baay ñun du seen alali baay yéen ñii la seen baay faatu ñu bëgg leen séddale seen alali baay kon nag comme ñun ñoo yéen ñoo ci bokk yem ñun dañuy miraas loo rek kon nag jël leen lii wax leen waxi njëkk waxi njëkk fees na kollub gor waxi njëkk fees na biirub gor yàlla nag balaa muy dugg ci miraas mi daf koy ñagal ñag bu garaw su paree it ca geneen wàll ga mu ñagal ko fa ñag bu doy waar moom suñu borom tabaraka wa taala ndax doomu aadama yi ragal yàlla ci wàllu miraas mbokk yi yàlla nee na wal yaxsha na ragal wal yaxsha na tiit allazina ñi nga xam ne law taraku bu ñu bàyyi woon min xalfihim seen ginnaaw bi ñu deexee bu ñu bàyyi woon zurriyatan ay njaboot yu sew di aafan yu néew doole xaafu alayhim daañu ragal ku yàq seen alal ñoom tañ nañ ragal ci alali jàmbur yi déggal rek jooju wax moo di alal ji nga yor nar koo séddale ay jirim wala ñoo xam ne seen baay moo génn àdduna nga war leen a séddale seen alal yàlla nee na na nga ko def ni sa alal ndax lii ngay séddale miraas danañ séddale sa miraas yow yaa ngi nii toog di séddale miraasum bàyyi jàmbur danañ séddale say doom sa miraas yow ginnaaw nag xam nga ne soo bàyyi woon ay njaboot yu sew da nga ragal ñu sànq seen alal bul sànq alali bàyyi jàmbur soo fi sànkee alali doomi jàmbur dinañu sànq sa alali doom lépp loo leble daañu la ko fay wala yaxsha alladina law taraku min xalfihim zurriyatan diaafan xaafu alayhim koo xam ne soo bàyyee doom di nga am am tiit suñ koy miraas mu ne na nga ragal yàlla ci sooy miraasal jàmbur ndax képp ku toog ci miraas na la wóor ne dañ la miraasal soo ànd ci rob na la wóor ne dañ ma sa ànd ci sa rob boo demee ci dëj lekk cay ceeb na la wóor ne gaa yi dana am bés boo xam ne bii say ceeb la ñuy lekk koo xam ne nag da ngay lekk danañ lekk say ceeb booy lekk ceeb bi jàmbur bi yow nga teewlu ci koo xam ne dañ miraas sa alal sooy miraas sa alal jàmbur bi yow nga jaar la ko ci yoon ndax looleeb la ñu fay la ko fal yattaqullaha ñii miraas nañ ragal yàlla fal yattaqullaha mbokk ya koy seede nañ ragal yàlla wal yaqulu kuy miraas ñii miraas nañuy wax xawlan sadida wax ju jub képp kuy miraas na nga waxta wax wax ju jub soo ñëwee laajal ki faatu ñaata la bàyyi ñaata doom la bàyyi ñan ñoo ciy góor ñan ñoo ciy jigéen ndax bàyyi na ay bor ndax bàyyi na kër ku moom kër gi ku ci turam nekk yooya na leer ba mu leer nañ nga seet ñi am ay cir ak ñi ñu xañ ci miraas nga jox ña am ay cir seeni cir ñañ xañ nga xañ leen te wax leen waxi njëkk yàlla nen innal lazina ñi nga xam ne yaakuluun dañuy lekk fu ñu toll moom la ñu dundee innal lazina yaakuluuna waxul innal lazina akalu mooy kon dañoo lekk alal ji benn yoon waaye yaakuluuna dañuy dunde am waalal yataama alali jirim yi seen baay faatu na nga ñëw ne leen maay seen feeru baay seen baay faatu na nga ñëw ne leen man maay seen seen baay bu ndaw seen baay faatu na nga ñëw ne leen man maay doon seen yaay tax yaakuluuna di lekk am waalal yataama zulman teg ko ci kawuk tooñ teg ko ci kawuk tooñ ndax alal joo xam ne liggéeyoo ko mayuñu la ko donnoo ko soo ko lekkee yaa ngi ko teg zulman ci kawuk tooñ yàlla ne ñu ko def innama yaakuluuna li ñuy lekk du dara fii butunihim ci seen biir ya lu dut naaran sawara sawar la ñuy lekk ndax suux wu ca juddu sawar lay jëm innama yaakuluuna fii butunihim naara wa sa yaslaw na daañu dugg saira sawaraw sair yàlla ñu ci yàlla musal danañu dugg sawaraw sair sa yadxuluuna naaran haaila mustaira wa hiya naaru sair foofu la ñuy dugg ñi nga xam ne dañuy lekk àll jërëm yi rawatina ci alalu ndono su ko defee kon sama borom tabaraka taala daal di ubbi nag aaya bi fas yéene dugg ci wàllu miiras miiras lu jafe la yàlla wóoluwu ci kenn lépp lu jëm ci alal yàlla daf koy attee atte woon woo xam ne wu métti lay doon ku sàcc mu ne dagg leen loxo ba dagg leen loxo ba loolu alal la ndax da sàcc soo jëlee alal jàmbur fëkk ko xupp ko yàlla ne da ngeen ko rey te daaj ko ci garab alal jàmbur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee ginnaaw alal nag da ngay sàcc ñu ne rey leen ko yàlla ñëw fii fas ko yéenee tëral ci wàllu miraas góor gu dee nuñ koy miraase jigéen ju dee nuñ koy miraase mu tëral ko ci tëralin wu leer nañ wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko moom it di miraase noona waaye néewu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli julli leen yàlla nee na yuusikumullahu yàllaa ngi leen di dénk fii awlaadikum ci seeni doom yàllaa ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal ya'murukumullahu yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum ci seeni doom moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi ndax bi muy miraas ci ñoom la tàmbalee yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seeni doom doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam baatu wala ci miraas day dugal góor di dugal jigéen lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayay ni cërub ñaari jigéen loolu yàlla tëral yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee ndey ak bàyyi nekk ci miraas fu góor amee cinq mille jigéen deux mille cinq cent la fay amee lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd seen papa bàyyi quinze mille ñu jox sa frère dix mille jox la cinq mille nga ne pour lan ñu fabaat deux mille cinq cent fële yokkal la nga am sept mille cinq cent mu am sept mille cinq cent yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem benn bis ñëpp daal lay jàmb fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo saañ say bën bën laxas la sagar wu weex dem ba ca armeel yi ne yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko ñu ngi nii indil nañ la ko tey daal lay suul ñu wëñ dem ñi bi togg ay ceeb lekk nga def ci ak sa borom sama borom ne la waaw yow keroog ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi dix mille jox la cinq mille lu tax nga nga coowoon ba am ñu tegalaat la ca deux mille cinq cent ma ne mbokk yi te yow man xiyaam am fa français fa ak a jafe waxuma laa na nga fay am deux mille cinq cent kon ni yàlla tërale nuunoy yoon te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat su ngeen bokkee ndey ak baay ñu jël dix mille jox ko jox la cinq mille yow sa cinq mille diw bopp nga ciy jënd ab koom ab peñe ab seetu moom dix mille am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk soo jaaxle sa kër cam sa kër jëkkër ñëw ci moom moom mi càmmiñ li waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy moomaat yow jigéen te it su mayee jotee moom mooy yëkkati xaalis mayaat la kon tabaaraka wa taala mi xam ni muy tërale xam na ni jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarkalla moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi alxasan al basri di atte wala boog benn attekat mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu woo waa dëkk bi yépp mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne ko kaay yow mi yaa ko rey mu ne nag reyu ko mu ne koy niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu neex ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko jigéen noonu la mel loolu la yàlla xam tabaaraka taala ba ne jigéen ci miraas benn cër bi muy am ñaaram la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu nekkee aw jigéen fawqas na tey ni ëpp ñaar léegi aw jigéen doo nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay fawqas na tey ni ëpp nañ ñaar mu ñu def mu ne fala hunna ñoom moom ñoom ñaar sulusa ma taraka sulusa ma taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi mooy bu seen papa bàyyee quinze mille ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar su boobaa dix mille la ñuy jël ñoom ku ne jël cinq mille bu fekkee ëpp na ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye dix mille lañ moom cinq mille ba fa des fa lay des gis nga kon yàlla tabaaraka taala foofu itam lim fi tëral soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor ya góor ñaar jigéen benn dañ ko xiddoo na nga xam ne noonu la tëddee insha allah wa in kaana al waxida su fekkee benn jigéen la papaam moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen ngeen baal ma falaha moom moom an nisfu genn wàllu alalu papaam xale bu jigéen bi papaam moom rek la fi bàyyi faatu ah su boobaa moom moo moom genn wàllu alalu papaam wali abawayhi ñaari waajuram ku góor wala ku jigéen ku ci faatu bàyyi sa ñaari waajur bàyyi fi sa papa maanaam ak sa yaay li kulli waahidin kenn ku ne dana am min huma ci ñoom ñaar asudusu siisee mu sa alal maanaam ku dee bàyyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñoom ñaar dina am ci sa alal siiseem sa alal la ñu xaaj juróom benn cër ñu jël ku nekk benn cër wala boog ñu xaaj ko juróom benn cër ku ne waaw ku ne jël benn cër muy siiseem ñaari siiseem yi ñu bokk ño ku ne am ci benn ñoom ñaar mimma taraka ci lim bàyyi moom ci faatu moom doom ji faatu in kaana lahu walad su fekkee ki faatu dafa am doom maanaam bi sa papa di am siiseem sa yaay am siiseem daa fekk da ngaa am doom fa in lam yakun lahu walad su fekkee amul doom moo xam bu góor la moo xam bu jigéen wa warisahu abawaahu ñaari waajuram rek ñoo ko war a donn fa li ummihi ndeyam mooy am asulusu li nga xam ne mooy ceeru alal ji su ko defee kon mbokk yi mel na ni waxtu wi jege si na te it ubbi nañu buntu boobu di wàllu miraas incha allahu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bu ñu fi dellusee ci ajuma ji di ñëw dañ koy jéem a doorewaat ci fi miraas mi tàmbalee mooy aay bi nga xam ne mooy aaya fukk ak benn ci saar bi incha allahu itam dinañ ko gën a yaatal ci seen émission bi ñuy tuddee risal Saxalayni xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa amoon ci lu mat juróom-ñeenti aaya sama borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yi weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal naka noonu mi ngi nii nag tey di ci teg àtte miraas te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu ndax jirim sama borom tabaraka wa taala dafa yittewoo ay mbiram lool bokk na ci li sabab aaya ji wàcc muy mbirum jirim nee nañu Saad ibnu Rabi' dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen daan ne yow mi yàlla yónni ñaar ñi ñooy ñaari doom yu jigéen ni Saad ibnu Rabi' te Saad ibn Rabi moomu di sama jëkkër ñu ngi ko rayoon ca xaswatu Uhud mu nekkoon shahid léegi nag bi mu xamee ne rey nañ ko ci Uhud mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yi ma ngàbb tey nii te xam nga ne jamono jii li xew jigéen ja wax ko yonent bi moo di duñu takk duñu leen takk te amuñu alal ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yàlla dina àtte loolu mu daal di wàcce ay yi nga xam ne ci la ñu nekk yusikum allahu fi awlaadikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad asulosayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen baay seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël hadis bi Abu Dawud nettali na ko ak Tirmisi nga gis kon ne yittewoo gus tabaraka wa taala yittewoo mbirum mbirum jirim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continuer ba nga xam ne miraas leer na nañ tabaraka taala leeralal ko boppam daal di tudd cëru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd cëri baay yi ak ndey yi daal di tudd cëri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd cëru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabarakalla suñu borom tabaraka taala moo tax mu ne baada aoudu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim yusikum allahu fi awladikum lilzakari mislu xadi unsayayn fa in kunna nisaan fawqa snatayni falahunna sulusa ma tarak yàlla nee na yusikum mi ngi leen di digal allahu yàlla fi awlaadikum ci miiraas moo xam ne dafa jëm ci seeni doom bu fekkee way jur daa faatu bàyyi ay doom yu góor ak yu jigéen yàlla nee na lii laa ca tëral li zakari góor day am mislu xazil unsayayni cër bu tol ni cërub ñaari jigéen noonu la yàlla ne noonu lañ koy attee moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am muy ñaari cëri jigéen la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese fawqas na tey ni te ëpp ñaar mat nañu ñetti jànq wala ñeent mbaa mu ëpp ko fa la hunna su boobaa ñoom ñooy moom sulusa ma tarak deux ceeri li seen baay bàyyi maanaam bu ñu xaajee alal ji ñetti cër ñu doon aw jigéenu kese su boobaa ñaari cër ya la ñuy jël benn ba lañ fay bàyyi man nga ne kon su seen bàyyi bàyyi woon ñetti million ñoo moom ñaari millions yi loolu nag du caari ne xaalis bi dong la ñuy miiraas déedéet dañuy jaay kër gi jaay oto yi jaay yére yi jaay bagage yépp ba nga xam ne yemb na ñu teg ko ci barab seet nag lépp nan la toll ci xaalis loolee mu toll ñu xaaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraka wa taala nee na nii lañ koy defe su ko defee bu ñu ko defee noonu rek incha allah du am benn lëj-lëj wa in kaanat waahidatan su fekkee doom ju jigéen ji jenn doom dong dong la falaha moom moom an nisfu genn wàllu alalu baayam suñu jaayee matériel bépp jaay kër yi jaay yi nga xam ne moom la amoon lépp jël ko mu nekkub xaalis mu bàyyi benn doom bu jigéen dong alal jël ñu def ci digg ba pàcc fab benn pàcc ba jox doom ci jigéen ji la ca des dem fa mu war a jëm insha allah subhanahu wa taala loolu la wali abawayhi su fekkee nit nag dafa faatu bàyyi ñaari waajuram baayam ak yaayam li kulli waahidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na asudus juróom benneelu cër maanaam ñim maa taraka ca lam bàyyi maanaam képp koo xam ne da ngaa faatu bàyyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dañ koy xaaj juróom benn cër sa papa jël ab cër sa yaay jël ab cër in kaana lahu walad su fekkee ki faatu dafa am doom loolu nag sart bi mooy ki faatu dafa am dafa bàyyi doom moo xam ju góor la moo xam ju jigéen la wala sax doomi doom muy sët ci sët boo xam ne mën nga jóge ca sa doom ju góor kooku su fi xasee nekk yaay sixième papa sixième fa in lam yakun lahu walad su fekkee nag amul doom bi maanaa ki faatu yaay rek la fi bàyyi ak bàyyi képp bàyyiwu fi doom du ju góor du ju jigéen bàyyiwu fi sët wa warisahu donn ko abawaahu ñaari way juram léegi ndeyam ak baayam dong ñoo koy donn fa li ummihi sulus yaayam moom day am ceer maanaam su bàyyee ñetti million benn million bi la yaayam di jël bàyyi nag tuddaluñu ko fii cër lu tax tudduñu ko cër mooy la des ca alal jël lépp moo ko moom bi taasi bi ci géño loolu lañ tuddee al asaba mooy kon yaay mooy jël cër ñetti cër ñetti cër bu ñu ko ko xaajee benn bala yaay di jël yaay it danay jël léeg-léeg li ñu tuddee sulusul baaqi mooy li des bi jëkkër ameeb cër wala li des bi jamar jabar ameeb cër la ca des nag la ñuy séddale ñetti cër yaay jël benn lool dina am fu ko yaay di amee ci miiraas fa in kaana lahu su fekkee ki faatu dafa am ixwatun ay frère fa li ummihi su booba yaayam day am asudusu sixième su ko defee la ca des baayam jël ko frère yi nag moom su boobaa du ñu am loolu moom tam noonu lay tëdde min baadi wasiyatin bala ñoo miraas nag ginnaaw ndénkaane boo xam ne yuusi biha dees na ko dénkaane aw dayn wala bor maanaam bi ki faatoo bala ñoo miraas alalam wasiya ba mu defoon muy testament maanaam ndénkaane bu jaadu wala bor yooya dañ koy génne ba noppi génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne